jaajëf jërë ngeen jëf ci seen àndina ak le buzz du web la chaîne des leaders Senbuzz TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ah, di leen kontaane di rafetlu bu baax a baax it seen àndina ak suñuy programme ni ki démb la lutte sénégalaise ah, fanaanoo ak naqar actrice kenn ci ndaw ñi fi nekkoon nga xam ni làmb amoon na ci moom espoir mu bokk ci ñi nga xam ni aussi génération am ràññe woon nañ ko lool suñu borom jël ko ni ki démb muy Moussa Dioum ah, di li waral rédaction Senbuzz ñëw di am ak jotaay spécial hommage à Moussa ak koo xam ni kenn la ci làmb kenn la ci champion yi kenn la ci ñi nga xamee ni lamb tey bu taaroo am na ci jéego bu am solo mooy le grand leader Khadim Ndiaye moom la rédaction Senbuzz ñëw pour commencer rek grand Khadim dañ lay jaajëfalaat bu baax a baax ci disponibilité bi di la massawu di la jaale li nga xamee ni ñoo ko bokk muy génn ak àdduna euh, kenn ci ñi nga xamee ni ci sa njaboot la bokk muy le grand Moussa Dioum. waaw jërëjëf euh, asibillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonant bi sant suñu ñaari waajur waa seen bës yëpp. Mhm. di sant di sant sa caméraman. jërëjëf Ndiaye. di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mhm. àdduna nag ak lii ñoo ànd. Mhm. tey làmb am na perte bu mag. muy xale bu ñu amoon ci moom yaakaar. muy kan Moussa Dioum. di ko ñaanal fa mu jëm. yàlla na ko dàqal fi mu jóge bii ñëpp naqar lañ fanaanoo ndax lii amul kenn benn mbër buy takk ngemb rek. bu xalaatoon lii. maa ngi ñaan suñu rakk yam fa fekk ak suñu papa yam. Mhm. yàlla na leen yàlla xaari àjjana. ci barke weeru koor rafet nañ ci njort bu baax. di ko ñeeku nag di jël njaal mi. Mhm. di ko teg ci loxo ministre sport muy Matar Ba nga xam ne mooy suñu kilifa. Mhm. loolu la yàlla dogal di jëlaat njaal mi di ko tegaat ci loxo CNG Bira ndax mooy suñu njab mooy ci suñu njaboot la bokk. ak kenn ci promoteur yi muy Pa Abdou Fall. Pa Abdou Fall. boo gisee ma boole ko ci. moom sama combat ak Moussa Dioum maa jàppoon Moussa Dioum ci loxo ba ci moom la ko tëggal sama combat ki d'accord muy booy bu yaru nag booy bu baax. Hmm. di wax ni rek il foog ñu delloo si waat xel ah, man hmm. naa ni sax man feebaram euh, yàgg naa koo dégg. dëgg la ndax presque dafa gore ba dee rek. dëgg la xam nga nit moom. Hmm. Euh, jamono ji li ñuy wax rek nit boo goree euh, te am lu la dal te mënoo koo génn siñaale ko. loolu ci gore la bokk. am na mm. ñoo xamante ni combaan ñu bari ñu ngi dox tey dañuy sooxaale feebar ndax bëgg nañoo faju te mënuñoo faju te amuñu seen ngor mayu leen ñuy dem ci nit wala ñuy génn ci tele bi nan nañ ma defal nangam wala nañ ma dimbali. mais ñu ngi koy ñaanal daal. Mm. moom Moussa Dioum fa mu jëm. yàlla na ko yàlla xaare àjjana. amiin xaare la boo xamante ni yaru na. Mm. gis nga àddunaa ngi nii de. mais nag rafet nañ ci njort ci fanu mujj koor gu yërmande mu dem ci. ah rafet nañ ci njort yal na ko yàlla yàlla na ko Seydina Mohamed teeru. amiin yaa rabbi yàlla na rëccu lu mu doon defee ci kaw suuf. amiin yaa rabbi alors euh, grand Khadim wax ko mu nekk koo xam ne aussi en dehors de li nga xamee ne ràññee nañ sa taxawaay ci làmb am na ay qualité yoo xam ne yow en tant que ancien lutteur aussi gisoon nga ko ci moom yan qualité quand même euh, ci nit waaye tamit ci li nga xamee ne mu ngi ci woon di ci yëngu nga gis ne suñu borom mayoon na ko ci. waaw mënoon na bëre lool. Hmm. mënoon na bëre gëm li muy def nekkoon espoir bu ñu am yaakaar moom bu fàtte moog booy yi daanaka sax ñoo bokk génération xam nga. Mhm. Modou Lo ñoom Balla Gaye ñooñu ñoom xam nga. Mhm. ñoom Baye Mandione genre yooyu ñoo bokk bi génération mais nag ñooñu dañ ko xawoon ëpp tuuti sens ñoom ñoom Modou loo dañ ko xawoon ëpp tuuti sens mais man fu ma saan daje. Mhm. sama grand rek la may wax sama grand sama grand. des fois sax mënuma père. ko defee ma ne ko man booy maguma la mais booy bu booy bu amoon ci moom yaakaar ndax amoon respect. xam nga fonkoon ay waajuram. xam nga mas naa dégg témoignage yaayam di ko def ci moom xam nga loolu. bu bu li dalee suñu kaw rek te ñu jaboote leen rek day doon balu fital bu bu la day doon balu flèche bu nekk ci sa biir xol boo xam ne doo ko mën a dindi mais li ñu mën rek mooy delloo si waat xel yi ndax damay wax ni dee nekk ci suñu dënd mm-hmm. képp kuy dox rek mu ngi ci sa xam nga te li ñuy wax rek képp ku képp ku dund rek di nga mas a dem mm-hmm. ñaan kay yàlla na yéex te fekk ñu ci lu baax moo tax mooy bëgg ñuy delloo si waat xol yi di delloo si waat xel yi mm-hmm. xam nga di xam ni àdduna mi ngi nii te ñë lamb sa ngéem la xam nga te ku dem nag doo ñëwaat <coughs> te ku dem njort rek la ñuy rafet pour ñaanal la yàlla yërëm la mhm. mais ku dem tamit la nga fay fekk yow rek yaa ko xam moo tax boo looy def ak sa digganteeg sa doomu aadama na doon lu baax na doon lu yàlla gërëm léegi gis nga combaan dëkk bi léegi jaxasoo na mhm. yeneen teetuñu jàmm bëggatuñu nit ku tekki bëggatuñu nit kuy baax bëggatuñu nit kuy def lu baax xam nga même boo amee sa sax muy def lu baax nga di ko fësal sax ñu ne day dóor ndax xaalis la soxla ci moom te yooyu yëpp nit dañu war a delloo suñu xel. Mm. te xam ni ku la nax seen saa yi xetin mawti bakkan bu ñam dund di nga ñam dee. ak dara ju joo mën a am bis dina ñëw juróom-ñaari perkaal yu mm-hmm. tey yàlla rek moo mën a taxaw wax ni kii day day day dugg dama koy texeel wala dama koy nangam ñun rafet jot rek lañ ci am moo tax lu ñuy def nañ xool suñu diggante ak suñu borom c'est très important. très bien alors wax nga ko mu nekkoon ci génération boo xam ne tamit euh, am na ñu bëree bëri ñoo xam ne ñoo bokkoon génération mais en dehors de loolu aussi ñu gis ni am na loo xam ne suñu borom maayoon na ko ci euh, ñu bëri dañ daan wax ni Moussa Dioum dafa mel ni mbër la woon waaye yorul woon image yu mbër façon bi mu daan waxee da nga daan gis ci moom yar bu bëree bëri euh, par rapport ak li nga xam ne moom la ñu tàmb di ko gis ci li nga xam ne mooy mbër lan nga jàpp ni moo waraloon loolu Moussa Dioum ci communication am jaar yoon mu nekkoon koo xam ni éducation am tamit daf ko daan wane bu baax xam nga yar yar foo dem da nga koy yóbbaale. yar foo dem rek da koy yóbbaale. éducation boobu gis naa ko ci moom amoon na yar amoon na mënoon na communication trop. Mm-hmm. ma soo dégg fu mu saaga wala fu mu yàqee làmb wala dara. Mm-hmm. xam nga loolu yëpp dama ko doon seetlu ci moom quoi dama doon seetlu lu bëri ci moom ci image yu yarute yorul xoolu mbër bi xam nga. Mm-hmm. même boo gisee sax lu sawara woowu sax moo tax ay moromam dem ba ko fi. mais nag loolu lépp day day boole rek. c'est vrai que ñenn ñi sax ñu ngi wax ni yaru bu mu yaru woon moo tax xëy na carrière am a am retard ci yu bëree bëri li nga xam ne yarul woon fuggu mbër daawul wax ni mbër ñi wala ñu bëri ci ñoom doon waxee ak yooyu. déedéet daawul def yooyu wax dëgg yàlla daawul def yooyu nekkoon nag ci benn paa bu ñuy wax Ibrahima Ndiaye maa ngi ko koy jaale. Mhm. xam nga yooyu yëpp <clears throat> image la boo xam dafay des ba léegi. ndax làmb temps la rek tey li li am solo mooy nga wàcc fi loo xamante ni bu ëllëgee nit ñi dañ mën a seede ci tey jii ñëpp yéen journaliste yéen ñëpp yéen a koy seede ci baat boobu mu amoon ak ngor googu. xam nga am na sama benn booy mooy waxal bi mu ne ma père pourtant Moussa Dioum feebaram bi yàgg na ci moom ndax bi muy ñëw ci fan yii am na benn làmb ju ñëwoon. Hmm. ne ma Moussa Dioum dafa jeex tag am na mbëri bari ñoo xamante ni xam nga combat hmm. tey yàlla ñu yàlla musal ci ku goree ba pare sa doole néew. yonent bi daan ñaan sax bay bay bay ñaan ñàkk bëgguloon ñàkk am. ndax xam nga combaan ñàkk gu ëpp sax xaw tut ngay ak kéefar de ak kéefar sax day xaw a dugg mhm, mhm. boo ñàkkee ba pare sa ngor mayu la mënoo ñaani mënoo leb combaan ak kéefar da lay dugg foofu sax mooy waral nga gis nit ñu di ko wax xooloo lu mu war wax jënd ko ci ngorom fekk ko ci ak ngorom jënd ko ci xaalis ndax ñàkkam moo tax moo tax ñu ne nit loo ñàkk-ñàkk war ngaa des ak sa ngor ëllëg du añ du reer mais combaan lu ma a sedd la lu mot a fàttaliku la tamit tey tey tey combaan lamb jëpp am na xar tey très bien alors grand Khadim Ndiaye dootuñ ko présenté xam nañu ko bu baax a baax bu weesoo li nga xamee ni liggéey na ko ci gën a taaral lamb waaye tamit di dimbali xale yi nga xamee ne ñoo ci nekk leneen loo xam ne ñu bari ci amateur yi aussi ñoo ngi koy laaj ci tonton Khadim moo dina carrière am dafa gaaw a basculer maanaam dañu toog rek euh, gis ni absenté na te li ko mayoon mënagul woon continuer mooy ay feebar yu bari yu mu doon euh, yëg ci yaramam loolu lan nga jàpp moo ko waral ci li nga xam ne mooy Moussa Dioum waaw xam nga micro bi ci bi nag man di gis naa man léeg ma gis ay booy yu bëri seeni mbokk ñëw fi expliqué ma seen feebar xam nga mais loxo dafa jotul ginnaaw te combaan koo dem ci moom di ko wax naa ko pour nga dimbale diw xam nga dafa wóoru dama am ay booy yu bëri feebar kat dama bëgg nga dimbale ma ma dimbale leen dañ yaakaar ne sax yow da ngay dóor mais combaan fii li may toog néew na ma toog laajal sama njaboot bii billaahi wallaahi man néew na ma toog sama kër te fukki nit bu fukki ñu nangam ci ak ñoo xam ne ñu ngi ci làmb ji. ñoo xam ñu ngi ci làmb ji. Mm-hmm. ak à ñoo xamante ne ñu ngi ci nekkuñ sax ci làmb ji xam nga. Mm-hmm. loolu lépp euh, néew doole moo ko waral léeg-léeg sax nit sama nit ku baax yëkkati dara jox ma wóor na sëriñ Touba Mbacké dërëm duma ko ci lekk lépp lay demaat ci nit ñi ndax dama xam ne bis day ñëw lii dal Moussa jum damay dal. Mm-hmm. te yàlla na yéex. très bien xam nga. day dal keneen moo tax dafa war di rafet. te te te Moussa Dioum li may wax rek dafa gore ba dem. gore na ba dem billaahi ba feebaram. Mhm. nit ñi dañ koy déggandi nii rek mais kenn musul taxaw fu mu déggee ni Moussa Diouma ngay nangam wala nangam. te ànd ak ni amul woon moyens yi war. pour pour xëy na faju ni nga xam ne ñoom ñoom la waroon a combaan mhm. wóor na Serigne Touba Mbacke billaahi wallaahi weeru koor gi. nit a ngi faatu sax te feebar boo ko dal bu ko signalé woon nit ñi faj ko mu wér continuer activité mais ngorom ak personnalité moo ko may loolu. Mhm. combaan am na ñoo xam yoruñu. mais billaay duñ tàllalaamee. Hmm. loolu nag góor yu mel ni ñun ñoo koy xam léeg-léeg ñu rombanteeg ñoom yëkkati dara saapante kook ñoom. Hmm. mais billaay wallaay bu fekkoon nii réew mi ñu fi nekk am na ñu fi nekk nag di def lu baax nag combaan ku mel ni ku mel ni as ndaw ndu kumaan. Hmm. combaan ku mel ni as ndaw ndu kumaan kum tane mi ngi lay dimbale ku mel ni Pape du Fall. ñoo ñëpp kuñ tane ñu ngi lay dimbale te réew mi dama bëgg. combaan ñuy partagante. tey xaadim dara mën na koo jot mais ngorom mayu ko ak fuggam tey mu génn ci yi wala muy dem di diis kenn soxlaam. Mm. lu dul kenn rek lay romb rek ku mu am ci moom confiance mu ñëw dégg ko ndànk am na benn waay bu fi ñëw mësoon a ñëw comban mm-hmm. wan ma benn tab ci ci pooj bi fii ci biir comban wóor na yàlla tab bi ah. mm-hmm. tab bi mu yor mm-hmm. lii tey boo ko ci dugaloon xaj na ci tab bi kenn xamul taabu lan la mën na ko sooy lii ñaata ngay sooxaaleeg moom mu ne maa ngi soxaale moom at ak genn wàll. ma ne ko lii se mu a ma xaadim dem naa ci ay nit. Mhm. lii ma la ni ma la wane nii noonu laa la ko wane. kon compaan dépasse bi nekkoon ci bi ma waroon dépassé laa yëkkati jox ko. est-ce te wóor na yàlla bu ak weeru koor gi su ma mm. yoroon su ma yoroon lu ko mën a faj. dëgg la dinaa dem jaamu ci yàlla. dëgg la très bien bu ci kaw il faut que ñuy xalaat loolu. muy muy am solo mais xam nga ni bu weesoo loolu tamit euh, li nga xamee ni suñu borom nattoo woon na ko ko feebar bi yàgg ak manqué ay moyens tamit leneen loo xam ne ñu bari dañ koy faral di di laajte tamit rawatina euh, bi nga xamee ni mu ngi waaj a bari léegi donte ni dogalu yàlla la ay mbir yoo xam ne dañuy nekk si seen digg carrière ay xele waroon a continuer ci làmb ji suñu borom jël leen ñu bari di wax ni daal dafa am loo xam ne nekk ci làmb bokk na ci li nga xam ne souvent aussi mooy causer yenn victimes yi di am maanaam yenn xëy na yenn jëf yeeg yooyu daal. bokk na waaw xam nga combaan. Ah. Hmm. Euh, li ñuy faral di wax rek làmb dafa nekk làmb dafa nekk lu lu lu metti làmb bokkul ak football. Hmm. làmb individuel la tey maag combaan su ñuy bëree combaan rek lay liggéey tey mën naa dem liggéey combaan def ko fenn suul ko yàlla may ma ndam ci kaw combaan sama xel fay loolu lépp xamatuma fa ma defoon liggéey bi moo tax mbër yu bëri dañuy dem ba nekk seen biir carrière sax gàllaaj googu commencé jàpp feeñ ci ñoom fekk tamit Xaadim Njaay néewal na sangootul defootul jugatul ci boppam lu bëri di këppwaat ci kawam ñu yaakaar ni nag leneen la fekk loolu moo dem ba nekk ancien gloire mhm. jékki-jékki ay feebaru sew wala dara tëral la mhm. dootoo jóg yooyu yëpp ci la bokk mhm. moo tax ñu ne la métier mi ñun ñëpp nañ delloo si suñuy xel bu ñu bëri am nañ droit bu ñu bëree dem ñaan lu ji mais suñu ñaan lujee ba pare mhm. lañ ñaan lu ji woon nañ dem dindi ko te yàlla tax te xam ne doomu aadama lañ ko def comme moom te loolu ñu ko def mën na réporté wu ci kaw d'accord te léeg-léeg tamit victoire jàpp leen rek ba xëy na yenn jëf yi ñu bàyyi ko des fois sax nga am sa xel jàpp sa xel dootul xalaat sax ni defoon nga dara des fois tamit nga am defet am loo defoon nit ki yow mi daanu mhm. fekk am nga loo defoon nit ki fekk du toujours combat la war a jàpp day tegaat ay fan doo jàpp loolu nag bu réperté ci nit ki da ko indil ay gàllankoor. Mm. moo tax ñun ñëpp war nañu bàyyiwaat xel ci loolu. te xam ni réew mi nag léegi réew mi. Mm-hmm. combaan réew mi ku ci ku ci ku ci jugul sa bopp 100 pour cent. góorgóorlu woo di am looy diwoo wala looy raay ah dina métti ci loolu ci yow ndax réew mi léegi dafa bëri ay sëriñ te sëriñ yi ay fétiche rek ñuy def. te xaalis rek moo leen di teel tamit d'autant plus. te xaalis uh-huh. luñ ko mën a amee rek baax na ñoom sëriñ si. Mm-hmm. xaalis bi nuñ ko mën a amee boo leen nee mm-hmm. rayal ma nit sax ñu rayal la Mhm. kon yàlla ñu yàlla ak yonent bi taxaw. amiin yaa rabbi amiin xiir ñu xiir ñu ci lu baax. amiin yaa rabbi loolu rek moo am solo quoi. amiin yaa rabbi Ndiaye très bien le grand Khadim xam nga ni tamit bu beesoo li nga xam ne suñu borom jël na ki nga xam ne mooy Moussa Dioum ñu bari aussi ci amateurs yi ñu ngi faral di wax ni ndax gisoo ni lu mel ni g war na créer benn caisse sociale boo xam ni tamit dina gën a fagaru ngir dimbali mbër yi nga xam ne léeg-léeg tamit ay gàllankoor dina leen jàll seen wérgu yaram te duñu am vraiment ay moyens ngir ngir mën a faju waaw jërëjëf ci Thiombane bonne question Thiombane mhm. fii may wax ak yow man am na mbër yu bëri ay mbër yu ndaw yu ma xam yu nekk ci ay jafe-jafe wóor na Sëñ Tuubaa yu nekk ci ay jafe-jafe yu metti mm. te ñu bëri reconnaître leen te ay mbër lañu moo tax man la combaan war nañu mën a dellu siwaat suñu xel ñun mbër yëpp en activité ñu xool nu ñu ute suñu yi nekk en activité mbër yëpp ak anciennes gloires yi yëpp ñu xool nu ñu doonee benn xam nga mm. lépp lu xew ci mbër ñoo am luñ ko compal jox ko mbër yaa am na mbër yu dund combaan lu metti fi mu ne nii feebar jóg sax mënuñu ko am ñoo xam si ñu ngi tëdd fañ tëdd lu leen yëkkati sax mënuñu ko ay neer ay neer sciatique yu yu yu yu metti moo leen dal yoo xam seen tànk mënta yëngatu. billaahi wallaahi mënta yëngatu. xam nga. Mhm. moo tax man su ma gisee léeg-léeg ñi di wax ci làmb ji wala nangam sama xel day dellu si boo gisee may robeele wu di wax yenn yi c'est parce que looloo ko waral combaan àdduna amul solo nañ dimbalante. nañ yërëmante te yàlla tax. il faut que ab jullit mër yërëm moroomu jullitam. yow da ngay gis mbër moo xamante ni combaan ay fameem loxoom jotuñu ginnaaw mu dugg ci làmb pour dimbale leen ndog dabal ko ci dañ koy teg à côté duñ ko faale sax. xam nga. te loolu ñu ngi ci maa ci ciy lancé CNG. xam nga di ci lancé tamit ministre sport nga xam ne mooy suñu kilifa. Mm-hmm. moom it ku baax la. Matar Ba moom Matar Ba waaw mu mm. ngi def ay jéego très bien mais loolu daal xam naa ni d'accord il faut que ñu waxtaan gis Gris Bordeaux waxtaan ak moom mm-hmm. ñu xool mbër nu ñu leen mën a jàppale faj leen d'accord très bien alors bu weesoo loolu ki nga xamee ni moo waral jotaay bi mooy Moussa Dioum tamit ñuy ñaan yàlla lee ko aljanna xam nga ne leader la woon demoon na ba créer sax bu ma juumul wala jiite benn écrit boo xam ni parcelle mbooloo la ko tuddee woon loolu yëpp di wane rek engagement bi nga xamee ne am na ko ndax durant lim feebar yëpp na moment boo xam ni jotoon nga dégganteeg moom wala naka nga yégee woon feebaram tamit waaw man nag yàlla dogal na jotu moon a dégg feebaram jotu naa ci dégg tuuti mais xam nga dañuy wax ni boo déggee nit boo am nit ku ñëw ne la ah sa waay dafa jeex da ngay jàpp ne dafa nekk baisse de forme rek xam nga. Mm-hmm. te dégguma fenn fu Moussa jum jooyee wala ma dégg ku sës ci moom ne mus ah Moussa jum day feebar na feebar bu jéggi dayoo xam nga. Mm-hmm. ba bi mu gaañoo nag lay doog a am loolu ko di wax ni borom jom la woon nag. Mm-hmm. demoon na ba former écurie xam nga Birame yi nekk fa mu jiite ko kon moo lay wane ne amoon na ambition. Mhm. xam nga mhm. autorité yi il faut ñu jàppale xale yi. Mhm. gis nga nit a ngi dund loo xamante ni su la ko waxoon combaan. billahi da ngay teg sa micro. il faut que ñu dimbale man combaan. mënumaa <coughs> yor cent franc fii fii ma dëkk ni caaru géej gi li ma fiy jëriñ doomu aadama rek. te lépp ci nit ñu baax ñi lay jógee. xam nañ ci dara waaw lu bari ci nit ñi lay jóge xam nga moo lay wan ni combaan yàlla ñu yàlla réew mi metti na de am na ci ñu metti lool. Mhm. combaan ngoon bu jotee nii. Mhm. yow am nga loo jëndee tàndarma mais bii lee am na ñoo xamante ni. suñ génnu ci nit ñi duñ ko duñ ko lekk. dëgg la combaan bu ma la waxee sama doom bu jigéen bi laaj ko. léeg-léeg ma koy oo ba mu ñëw ma yëkkati dara ne ko dama jox diw diw diw diw. dëgg la wóor na te ñooñu mënuñoo ñaan ndax surtout boromi sutura lañ. kon yàlla ñu yàlla dimbale rek amiin yaa rabbi ah. alors très bien muy wane rek taxawaay bi nga xamee ni am nga ko lan nga ñu mën a wax tamit ginnaaw bi nga xamee ni euh, dem nañu ba léegi fi jamono toll xale yi sax di faral di tooñee naan euh, làmb yaakaaruñu ni julli dina ko def mu nekk loo xam ni xale yi léegi dañ koy foyee bu ñu demee ba toll foofu tamit lan nga ñu si mën a indi ci indil ci ay leeral xam nga ñun ñoom bàll bi ñun ñëpp dañ daan bëri mm-hmm. ba ci ñoom màng mais làmb dafa nekk métier mu garaaw te léegi gis nga combaan sëriñ si féticheurs yi yëpp daw na ñëw Sénégal léegi sëriñ ci àdduna bi Sénégal la gën a doxe sëriñ mm. affaire u ñaan fii ci Sénégal la gën a doxe léegi bu njëkk ba da gis sëriñ sax bu daan génn day yónnee ab ab taxi wala mu yónnee telandoo ñu jël sëriñ ko mais sëriñ si yëpp yëpp ay 4x4 lañ yor 4 x lañ yor ndax liggéeyu bon yi mm. ak li liggéeyal ma saa wujju combaan mi bokk naa ak moom service combaan moo fa fekk yàlla yëkkati na ko mm. na fexe ba combaan wàcc wala mu dee looloo fi looloo fi may ay kat kat xam nga li jàpp doomu jàmbur liggéey ko liggéey liggéey liggéey ba combaan du mën a yëkkati sax tànk pour seq pour jox liggéeyam. combaan nag eh, réew mi attention de boo déggee ñu ne xale yi di kafe naan làmb jullit du ko def c'est parce que fa ñu adhéré la làmb dafa garaaw ndax am na sarax yoo xamante ni bu ñu la ko dee wax nga di ko def yow yàgg yëfar yéene am luy lu am bakken nga suul ko. Mhm. boo ko defee yàgg yëfar yéene lu am bakken nga rey ko ci ci nga rey ko ci kanam nga rey ko ci dox gi mhm. yàgg yéefar yam looloo tax ñu naan làmb mhm. dugg ci comme yéefar rek moo tax ñu wax loolu d'accord très bien alors grand Khadim xam nga ni tamit euh, bokk na ci li nga xamee ni jamono ji ñu bari ci askan wi ñu ngi koy jooy ginnaaw génn ko àdduna ki nga xamee ni mooy Moussa Dioum moo dina ñàkk bennoo goo xam ni dañ koy gis rawatina ci génération bu bees bi ak it euh, xëy na ñàkk miinante wala ñàkk bennoo boo xam ne gis nañ ko ci génération bi bu bees bi nga xamee ni ñoo nekk ci làmb ana yan kàddu ngay yëkkati jëmale ko ci loolu waaw di leen wax ni li amul solo mhm. loolu jëmalewu leen kanam. Mhm. il faut que ñoom ñëpp ñu booloo nekk benn. Mhm. suñ be suñ suñ bennoowul tamit lii dal ci ko Moussa Dioum tey su ñëwee suba lañ koy denc mbër yëpp ay ñëw xam nga. Mhm. yow bu ngeen dajee dëj ngeen daje te ñaanu ñu yàlla sax di jubóo ci ay biir dëj kon li am ba sol am ba am mooy li ma bëgg mooy mbër yëpp mbër yu ndaw yëpp ñu joxante loxo. baalonte ax bu ndajee ci biir géew bi nag ñu jëflante ba mu mat sëkk. mais su jeexee. noonu bañ a duggante seen diggante. Mhm. ak bañante ndax lii am tey jii ñëpp ku ci nekk yaa ngi ñaanal Moussa Dioum yàlla na ko yàlla yërëm. Mhm. te lii nag kër gu ne lay dugg de ku nekk sóor ko nag ku nekk nga tàllal sa loxo xam ne bis du añ du reer mais day ñëw de. Mhm. de kër yëpp lay dugg billaahi wallaahi tallaahi kër yëpp lay dugg moo tax nag waajal leen ko balaa ñëw. il faut ñu jël àdduna bi ñu jël bëgg koo yanu bëgg koo taw bii bis bi dina ñëw àdduna dina la nax ndax dañ àdduna yaa mën a war. xaj ma ndey xaj ma bàyyi soo ma jigee sama doom danga may nax muy lu dëgg lu wér péng la ñu wax. Mhm. il faut que nit ñi xalaat seen digganteeg seen borom ñetti fari bàmmeel lu am mhm. importance. très bien leneen lii mooy bu ñu demee ba nga xam suñu borom def na li gën jëlee na ko fi waaye ma jot information que ni feebar bi donte ni métti na ci moom wante tamit xawoon na am problème sax pour xëy na faju bi nga xamee ni waroon na moom Moussa Dioum mu am ko ma dégg ci bari na ci ay mbokku mbiram yoo xam ni xëy na demoon na pour tàllal leen loxo waaye taxawaay ci waroon am aussi amul loolu yaa message nga ci yëkkati. waaw am gàcce bu fekkee loolu combaan ni ñu ko waxee. Hmm. noonu la amee gàcce laa ci am combaan il faut que ñu yërëmanti il faut ñu yërëmanti. Hmm. combaan léeg-léeg moo génn kilifa am lu ma ko wax mu yëkkati jox ma lam ma jox. Hmm. wóor na yàlla ak koor gi du fanaan sama kër lépp dama koy partagé combaan. li nga wax nii dama ci am gàcce. góor gu toll ni Moussa Dioum. sa nawle ngeen bokkoon li ngeen def mu dem ba yàlla tëral ko. wërsëgam wàññeeku yow ngay dese wërsëg mu ñëw diis la soxlaam. Mm-hmm. nga mën ko te yàlla tax te ngeen bokk couleur bi ngeen défendre mu tàllal la loxo yow defoo ko yow bu lu ci am rek ci sa sa loxo gi ci biir. Mm-hmm. Mm-hmm. te te te Moussa te li nga wax ni sama yaram sax. xamatuma sax lu may wax. c'est vrai que ñenn ñi sax dañuy faral di tooñ eh. naan mbër mbër nga baal ma si wax ji mbër du am kóllëre du Moussa Dioum rek bari na ay xele yoo xam ne da ngay ànd ak mbër euh, tëdd feebar waaye xëy na ñim la waroon a jege aussi ñu bari ci seen i famille dañ koy di déplorer léeg-léeg. dé déploré waaw naa ko dégg. léeg-léeg sax nga dem ci sa xaritu kilifa mu di la tooñ. Mm-hmm. ne la mbëri amuñu kóllëre. ndax diw muy ak diw dugal naa woon sama loxo. mais ba jon yàlla tey sax du tudd loolu lépp danga koy dégg. Mm-hmm. mais il faut tamit ñu bàyyi loolu mais mais gis nga dañ jël si waat Moussa Dioum daa gore ba dee yàlla mi am yërmande yàlla na ko yàlla yërëm. mais gis nga combat. Mm-hmm. mbëri ci kaw il faut ñuy gëstu xale yi ci suuf di mën a jàppale. wala ñuy ut renseignement am na seen r yoo xamante ni bii dee combaan ci seize route lañ ne ñu ngi dund lu métti. Mm. te Moussa Dioum mi ku xool ku xool situation am damay xool démb ay archive am xool benn photo mais boo ko xoolee rek kanam gi rek di nga xam ne kii wérut. boo xoolee kanam gi. Mm-hmm. xool ko rek image bi rek di nga xam ne kii te nit ku wérut doon gor doon bañkat day toog rek ba yàlla ñëw. Mm-hmm. wala nit bonne volonté dégg ko wala xaritam dégg ko dem ci bonne volonté mu ñëw faj ko. Mm-hmm. man de wóor na Sëñ Tuubaa Mbàkke aw ma ci woon éco 100 pour cent mais boo ci amoon éco 100 pour cent. Mhm. barki sëñ Tuubaa Mbàkke dinaa def pexe bañ faj ko ndax man bi ma koy mujj woon a dégg. Mhm. États-Unis laa ko doon dégg. xam nga. Mhm. mais ginnaaw bi nekk nee nañ ma ñëw na bu yàgg. nekk këram feebar. mais wóor na yàlla weeru koor bi su ma ci yëgoon te man ah li gis ngeen yooyu may def noonu loolu ma bëgg a jóg. pour jaamu xale ci jaamu yàlla ci xale yi samay naataangoo mbër yi nga xam ne ay xale te feebar dab na leen ci biir làmb dama ci jaamu yàlla rek. très loo ci def. Mhm. yàlla dala koy fay. absolument waaw benn mbir boo xam ne xam nga ne am na ay mbër yu fi nekk ñu leen di tëddee ay mbër yu mag wala ay VIP lan nga jàpp ni ñoom tamit ñoom moo war a nekk seen taxawaay tamit ci doxalinu làmb rawatina ak génération bees bi ba nga xam ni léeg-léeg tamit bu yu mel nii dalee kenn ci xale yi tamit dinañ sentir ni bu waa CNG jugul. Mhm. kuréelu mbër yi jug nañ di manière général waaw xam nga même mbër yi sax ñoom ñooñu suñ dajaloo woon ñun ñëpp. Mhm. ku nekk joxe ñaar téeméer ñaar téeméer rek mbër joxe téeméer xaalis bu bëri la plus ku ci nekk am nga nit ku baax koo mm. xamante ni tey boo amee combat dina yëkkati lu mat 5 millions la 6 millions dimbalee la kooku suñ demoon ci moom susur ko mën naa génn benn 500000 sax pas 1 million wala 200000 ñu seeti keneen. Mm-hmm. xam nga. Mm-hmm. ñu seeti keneen mu def te yàlla tax il faut que ñuy indi solidarité boobu ñuy dimbalante. te yàlla tax mm-hmm. mais soo nekkee ci kaw rek. nekk ba nga féete rek ngay jàppale. Mhm. day xaw a métti. d' accord beneen bi la très bien ñëpp maa ngi leen ciy laaj. très bien alors leneen loo xam ne ñu ngi koy faral di nemmeeku muy fiiraange bi nga xamee ne am na ci mbër yi xëy na boo nekkee mbër bu siiw wala nga am yenn tur yi dootoo nangu di ànd ak ku ne rawatina koo xam ne xëy na mbër la ni yow. loolu tamit euh, lu ñu soxla nga leeralal ñu ko la gën a xaadim gis nañu ko boo xasee ba nekk mbër bu mag rek dootoo am xëy na approche ak ku nekk rawatina tamit sa sa sa moromu mbër. waaw xam nga làmb dafa fiir mhm. làmb mhm. dafa fiir làmb dafa fiir te li tax làmb fiir mooy individuel bi ma la wax. Hmm. te làmb dafa ci bëri yoo xamante ni yàq moo gën a gaaw defar xam nga. lu yàq ci làmb dafa yomb. lu yàqal ci làmb. Hmm. dafa yomb fuuf fuuf sax sa buntu kër rek mën nañ fa am def loo xamante ni yow loo indeeti sa buntu kër boo ñëwee ba ci sa buntu kër mu yàqu. kon hmm. xam nga làmb dafa fiir. mais tamit lu ñu fiir fiir fiir nañ bàyyi xel seen bopp mais ñu bàyyi xel tamit ñi tëdd. d'accord combaan nga bëgg a faj fajoo nga bëgg a def defoo combaan dafa metti compaan nga yor sa njaboot sax xëy suba amatoo loo leen jox xëy tuba bëgg leen a jox mu tëlëx compaan dafa metti ci xol ci ci ci nga doon garmi mhm. xam nga billaahi wallaahi tallaahi réew mi am na fi ñuy dund coono yu metti compaan mhm. mhm. xam nga man damay toog fii léeg sama rongo rongoñ di ndax damay toog nekk jàpp sama caméra jàll taal sama tele taal sama ventilateur toog sama njëm am na ñoo xam mënuñu ko am na ñoo xam bu dogoo tey li ñuy doog sax balaa res génn nañ xool lu ñu uti ji pour suba. Mm. pour lu ñu doog. absolument. Mm. dama bëgg réew mi ñuy solidarité. dëgg la tey dimbale te yàlla tax. très bien macha allah macha allah muy la am solo grand xaadim fi may jeexalee rek dama doon waxtaan ak sama benn xaritu mbër bugguma turu tudd turam maa ngi koy nuyoo passage mu ne ma li ñuy faral di dégg mbër naan làmb ji sama bakkan laa ci teg lu ñuy jëfe la loolu tamit day wane rek quand am na benn danger boo xam ne aussi làmb ji sama bakkan laa ci teg lu mu gëm la boo ko yëgee boo ko yëgul. waaw xam nga loolu boo déggee moo wax ko loolu lu mu gëm la mooy maanaam. Mhm. sama bakkan laa ci teg mooy dina egg fu Modou Lo egg wala Balla Gaye wala yenn wala yeneen bëri yi loolu looy waxee quoi mais maanaam bakkan bi du caag da koo teg pour tay la ko ci ay sëriñ yooyu boo déggee muy wax ne mm. sama bakkan laa ci teg mm. mooy maanaam dina reyante ci bakkanam reyante ba egg fii ñu egg wala mu am ci loo xamante ni ñooñu am nañ ko loolu foofu lay waxee quoi mais waxee ko nu ñaaw wala dara mooy mu ngay wuti dara rek ne li muy wuti tey mm. am baa ñàkk rek am wala dee rek laa ci kii quoi maanaam da koy teg foo xamante ni mm-hmm. foofu rek la quoi ci yàlla maanaam bu fexe ba tey ne naa laal lampe bi mm-hmm. laal ko loolu rek la ci jublu mais du leneen quoi nit ñi nag ñoo koy eggal di ko eggal foo xamante ni mm-hmm, même xale yi dugg ci làmb yëpp pour dimbale seen waajur la da ngay dem nag ba ndog dab la ci bu la ci ndog dabee say parents néew nañ doole wax dëgg yàlla pour faj la day jafe man loolu man maa ci jóg di volonté wu léegi man pour l'instant nii. Mm. danaa ci commencé di liggéey. incha allah ñu ma ci àndal. xam nga ñu wër xale yi nga xamante ni war nañu leen mën a dimbale ñu dimbale leen fajjante yàlla rek tax. incha allah ndax dañ ciy jaamu yàlla ak keneen ku maa ngi defal ñeneen ñoo xamante ne du ñu ay mbër loolu dama ko war a yaatal jaamu ci yàlla ngir yàlla ak jëmmi rasulullah incha allah macha allah ñu doon am mbégte tonton Khadim Ndiaye ñi doon am mbégte di la ñaanal yàlla borom bi subhanahu wa taala may la aussi li nga xam ne yaa ngi koy mbébét nga taxawee ko spécial hommage la woon à Moussa Dioum du ñàkk am na message boo bëgg jëmale ci famem ak ñi nga xam ne aussi ñoo ay jege ñaaleem waa di wan santaat yàlla julli ci yonant bi mm. di ñaanal Moussa Dioum ci barke Seydina Mohamed fa mu jëm yàlla ko dàqal fa mu di di ñaanal ay waajuram di jaale képp kuy mbokk Moussa Dioum ku ci mel ni waajuram maa ngi koy jaale di ko jaale ñoom mbëri parcelles yëpp xam nga di ko jaale ku mel ni Modou Lo ku mel ni ki nga xamante ni mooy Papa Sow xam nga ñoom góor a soog ñoom ñëpp mbëri parcelles yëpp maa ngi leen di jaale suñu rakk ji musaa Dioum yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla mi yàlla na yàlla yeesal yërmandeem ci kawam di ko jaale tamit ki nga xamante ni mooy ministre sport Matar Ba. Mm. di ko jaale bu baax di ko jaale Bira set di ko jaale Pape Abdou Fall di ko jaale promoteur yeeg mbër yeeg yëpp man en tant que écurie Thiaroye man maa ngi jël jaalu jaalu écurie Thiaroye mm-hmm. di ko teg ci loxo waa parcelle yëpp sama rakk yeeg ñoom Baye Mandione ak ñoom Issa Pouye Xaadim Ndiaye numéro 2 ba Ahmed Dem ñoom Koli Faye 2 Reug Reug ñoom ñëpp maa ngi jël ci seen tur maa ngi koy jël di jaale ñëpp. di wax ni lii yàlla na fi géej combaan di la ko jaale yow it combaan ndax yow it nit ku baax nga seen seen télé bi seen kii bi wax dëgg yàlla ñëpp koy seetlu ci yar bi mm-hmm. ci caméraman bu set wax dëgg yàlla yow lu xew ci làmb rek da ngay jóg def ci ay jéego pour xool nu mu ubbeekoo ubbeeku googu ngay def nag yàlla na la yàlla ubbi ci barke weeru koor ñëpp kontaan nañ ci yow di rafetlu sa liggéey di wax ni joojo moobul moom mm-hmm. ca kaw ca kanam ay meuble yu rafet. macha allah ay meuble yu baax. Mhm. soo ko bëggee demal ba joojo meuble. dinaa ñëw nga yóbbu ma fa ma nga ca ca VDN ba. <laughs> incha di la di bu baax Combaan. jërëjëf Ndiaye di la ñaanal yàlla ñu yàlla taxawu. amiin yaa rabbi gi ñu jëm. yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm. amiin ci nekk aaja boo ci am. yàlla la ko yàlla fajal ci barke rasulillah sallallahu alayhi wa sallam amiin yaa rabbi ñu doon am mbégte ci am ak moom jotaay di ko gërëm di ko ñaanal yàlla bu baax a baax dig daje ci lu yàggul ak beneen invité fii amaanillah